yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf jaaxle ak tonk tumurankeek waarul Le Quotidien nee nañu ku bëgg xam nu muy mel demal Fuuta li ko tàmbale Bakel ba Matam yéen bi nee nañu askan wi ñoo ngi ci fitna dexuk Sénégal gi moo fa sar ba dugg ca dëkk ba kër yu bari ñoo ngi ca biir ndox ma tool yu bari te fleuve Sénégal bi nangu na leen journal Quotidien mi fa difub reportage mi ngi ñuy yeggee la mu fa gis ci page 2 page 3 a day ko jiite sursoi nee nañu ñoom la askan wi déglu tey mool ko ba mu jekk tuddé ko référentiel Sénégal 2050 tay ji ci lañ ko war a lolé ñu tuddé agenda de transformation journal bi nañu ñoo ngi ci tout solution gi ñom Diomaye ak sonku yàgg dëkkee ci nopi nit ñi bu yàgg ba légui bés bi le jour nañu yàggatul tay moy bésu projet bi le jour du projet projet di baat bi dama ko dikk dem ba boy nopi nit ñi journal bi dellusiwaat nañu ak ñun ci baat bi fu mu jóge ak fa mu jaar ba yegg fi vision Sénégal 2050 li quotidien nee nañu moy projet bu passé bi tay la ko Diomaye di présenter projet bi ñu yàgg gëmloo askan wi li quotidien nañu projet amu fi xottu kese la dara nekku ci li ñu bëgg wone tay ji projet gi nguur gees gi indi tey jii ci la xamal askan wi la ca nekk Bassirou Diomaye Faye moo nekk ci xët mu njëkk point actu journal bi duñuy jottali dànkaafu gi président doon dànkaafu waa këram yi ci séminaire gouvernement gouvernementale bu mu woote woon nee na leen dañoo war fexe ba askan wi du am dara lu ñuy sikki bés bu ñu defee lu jaadul askan wi ñu fi teg du ci bàyyi bu amee kenn ci ñun ku dugg ci biiroom xëttu yoon bu mu xaar mu ko gouvernement bi di ko ci solidarité libération dolli ñu ci ne moom président Diomaye dolli na ci gaayam ne solidarité lu war a am ci gouvernement la waaye nag na tege ci kaw dëgg journal enquête di laaj ci xëtamu njëkk lan lay tiit moom Diomaye di la ñu fi fekk ñuy seet nu ñu yaxanalee dépense réew mi Jomaay dajale ndaw yu Pastef yi fal leen ay chargé de mission teg leen ca palais ba ngir ñu koy doxali yónneen Dakar Times nañu ak ni muy doxee jamono ji jëral xët mu njëkk journal bi ay doomi Sénégal la nekk ci diaspora bi ànd ak alliance atel ñoo joxonte woon daje keroog samedi ca Paris la France fa la ñu alerté communauté internationale bi sàkku ci moom mu xippi ay gëtam xool li Sénégal di dund bi fi jomaay fay falo ak léegi yemuñu ci ñoom waa diaspora bi ne sàkku nañu ci opposition bi ci réew mi ñu booloo deen wannu say ngir sauver Sénégal ci élection législative yi war am ci réew mi 17 novembre ndax nee nañu bu ñu seetaane ba waa axlu projet ngar dajjo assemblée nationale ko ëppi buum entreprise bi di Synergie Afrique ñoo ko nar plainte ndax wax ju ko waxalon ci exécution travaux lot 2 bu programme bi jëm ci jëlee ci réew mi abré provisoire yi ci l'école li mu né Synergie Afrique 25 milliards lañu ko jox ci programme bi lolé amul defu joom joom gu mit ñom kilifa yu Synergie Afrique yi ñoo ngi leeral ci journal bi li ñu liggéey ci ay bloc administratif équipé ak ay bloc hygiène ci jamono joju journal L'As mi ngi ñuy xibaar suuf su ëpp hectares ak fanweer ak ben 131 hectares suñu dagg ci fulum bëgg ko jox usine ciment bi di Sokosim askan wane du ca dal